ورضي الله عن شيخنا وسلتنا إلى ربنا قطب المكتوم ذات الأسرار أبا العباس الشيخ أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه وعن وارث سره نور المبين سلام الله في الأرض حجة العارفين مميد الواصلين أبو إسحاق الشيخ الإسلام الهاج إبراهيم ابن الهاج أبلا يستيجاني رضي الله عنهما mbokki jullit ñi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi ubbi suñu kàddu di ziyaare xalifa bu mag ba muy Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass buñ ko ziyaare ziyaare nañ suñu wasila nga xam ne bu jëlewutoon ci ñoom ñun duñ jot ci mbir mi muy Cheikh Ibrahima Aboubacar Ba teg ci Cheikh Maas Ibrahim Dia ñooñu buñ leen nuyoo nuyu nañ ummatu Muhammad yëpp nuyu mboolem xulafaa u diini yi muy école yi kër yi ñu xam mu mel ni dañ ñu waxloo ci islaam lislaam nag e bu seetloo yàlla ci boppam dafa wax ci islaam indil ñu ci ñetti maqaama yoo xam ne jullit bi jullit bu nekk dalaa war maqaama yooyu nga sàkk ko jëm cee teg sa tànk ndax islaam ginnaaw bu ñu yàlla indilee baati seede yi baati seede yi muy juróomi ponki lislaam yi nga xam ne ñépp xam nañ ko seede ne yàlla mooy yàlla shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqami salat wa itayi zakat wa sawmu ramadan wa hajjil bayt liman istar ilayhi sabila muy juróomi ponk yooyu waaye buñ settantalee yàlla daf ñoo wax ca aaya ba ne wallahu yad'u ila daari wa yahdi man yashaau illa siraatil mustaqim yàlla oote na jëmale ca kër ak njub kër ak texe ga waaye dana teg ci yoonu siraatal mustaqim ku ko soob moom yàlla waaw ponk yooyu nag mun nañoo wax ne jaam bi gannaaw bu mu waxee pas-pas bi ci xolam loolu doy moo tax yàlla pratiqué ko loolu mu fas ci xolam ci juróomi ponk yi juróomi julli yi nga xam ne moom lañ lay njëkk teg yow jaam bi dugg ci diina lislaam juróomi julli yooyu moo lay ca ngay nekk ba ñaareeli ponk boobu muy iqaami salaat lan moo ci topp itaayi zakat loolu itam buñ ko seetee joxe asaka dafay mel ni alal dafa sax ci xol kon bu la yàlla joxeloo asaka mu ngi bugg a vérifier ba tey sa pas-pas ak xol bi ndax dëgg la war a dégg parce que su fekkee ne gëm danga ne gëm nga yàlla te gëm nga yoon yont yàlla Muhammad yow buñ la julliloo danga nga julli bu ñu la loo asaka da nga joxe asaka ndax alal asaka alal la dafa sax ci xol kon loolu ba tey dañuy vérifier yow sax xol bi pas-pas bi ñu ci wax dëgg la wala déet boo jógee ci pas-pas boobu ñu ne la lan wa saw mu ramdaan xanaa mu mel ni kon jotaay bi li ko gën a solo mu ngi noonu muy ñetteeli ponk bi muy koor koor nag yàlla moo ñu ko xamal ci alquran baax da auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim yàlla moo ñu ne yaa ayyuhaa allaziina aamanu kat kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala allaziina min qablikum laallakum tattaquun seetaan nag njeexte aaya boobu la fa yàlla indi muy laallahum tattaquun muy lan muy taqwa laa ragal yàlla yàlla ne na farataal nañ leen yàlla farataal nañ leen yéen jullit ñi gëm farataal nañ leen farataal nañ leen koor comme niñ ko farataalee xoon ñi leen njëkk lan la ci jujju noonu mooy ña yàlla wàcce xoon tawreet ña yàlla wàcce xoon jiin ak mboolem diine yi jiitu nañ leen farataale woon koor noonu lañ farataalee koor ci ummatu muhammad moo tax mu ne nag waaye loolu lan lañ ca war a jëlee mu ne ak ragal yàlla kon ragal yàlla ngoog buntam ragal yàlla damay wax ne ragal yàlla nag kon soo xoolee l'islam escalier bi njëkk nga xam ne jàmbi war na cee lu ba teg ci tànkam mooy taqwa la mooy laalawum tattaxoon jooju lu tax tax tattaxoon jooju ñu ne yow jàmm bi ne nit nga buñ ne yaa ayyuhan naas nit ak jinne dugg na waaye ñooñu nag yàlla da leen di seppi balaa ñuy nekk amano àggaguñ fa daf ne yaa ayyuhan naas waaw Euh, bi mu ne yaa ayyuhan naas jigéen ak góor dugg na lu tax jigéen ak góor dugg moo tax ba taqwa laa gi mu lay oo yow jàmm bi moo tax mu ne la ee eh, yow nit lu ca lu ca jiitu nag muy trois jours escaliers yoo xam ne mu ngi nekk ci taqwa laa alors moom la la bugg a franchir loo ndax escalier bu mag boobu dafa am trois sous escaliers muy euh, at tawbatu istiqaamatu nga door a agsi nag ci escalier taqwa la lan mooy taw tawbatu mooy nga tuub tuub boroom lax dara yi juñu nañu ko tuub mooy charatu tawba an naduma ala ma fata ila ba kii boobu jeex mu ne tuub mooy nga rëccu la nga nekkoon la nga defoon danga doon def nga bako ne dooto ci dellu rëccu te yéene ne dooto ci dellu su bi ilaa yombi loolu mooy tuub loolu boo ko defee taxaw nga ci premier escalier sous escalier deuxième escalier mooy istiqaamat maanaam wax gi nga ko wax léegi taxaw ca sax ca diggante boobu ci la la yàllaay tappalee garaat ak istiqaamat muy ñaareelu sous escalier maanaam ne nga tuub nga rëccu nga li nga doon def mooy nga rëccu xaaral naddamu alama faata nga rëccu li nga doon def yéena ne dootoo ci dellusi te tembe tembe li nga nekk tam ba nga ko julli rek la yàlla may mu mun a jëf ci li passé jëf ci liy ñëw jëf ci li teew ku dul jullit amoo ko ñu bu ñu la laajee jullit nu muy jëfee ci ci li ci liy ñëw neel mooy yéene boo yéenaa rek jël jëf nga ci liy ñëw boo yéene woon na sa dund yëpp di nga jaamu yàlla yàlla jël tey sa bakkan bi yàlla dafay jàpp ne yéene googu lay wéyal ne dugal la ajana taxel la du seetaat dara même bu fekkee jotoo màqam yi pour def ko éena ba nga éena rek dugg na rëccu itam li passé dan nga nga doon ko def ci lu bon boo ne rëccu naa ko rek te muy dëgg ci yow rek te mooy tax istiqaamatu googu di wér ci yow ñu ne kon yow loolu jéggal nañ la ko kon jullit moo am possibilité rëccu jëf ci li passé jëf ci passé le passé le futur le présent jullit rek la la may mu mun ci taxaw jëf ci dara waaw parce que temps bi su passé ñu ne temps munoo cee dugal lu may jëf ak wax temps boo fekkeewut ak dundoo ko noo ciy jëfee noo ciy def dugalee wax ak ak jëf ñu ne julli rek ko am mooy boo réccu bu ñëwagut noo ci mën ñu ne boo boo éenee kon kon loolu mooy la yàlla jagleel jullit nga nekk nag ci istixaamatu istixaamatu boo ci jógee mooy taqwaa laa taqwaa laa nag moo tax ñu lay tappal garaata muslim kon buñ ne l'islam garaat tab l'islam balaa nga ciy tapp garaat da nga sous escalier yooyu ba dugg ci maqaamam taqwa la yàlla tappal la garaat tab muslim kon muslim boobu nag soo fi jógee ci taqwa googu nga am mooy tax nga am ñuy tuddee la muslim ci diina islam dégg naa ci suma mel na mag mu ne lislaam bu fekkee da nga ko décomposé mooy li salaami diina ngir mucc mu ne soo ci nekkee te muccoo yow yaa ci nekk waaye moom nekk bu ci yow mbir bu fekkee da koy jàpp te jàppagu la neexee nga ba waaye soo ko jàppee ba mu jàpp la duur yow neexee nga ba moom kay moo ba waaye yow mënoo kon loolu mooy li salaami diinaay ngir mucc soo ci nekkee te xàggagoo sa mucc ji leer la ni sa rëdd baaraam yi rek xamal ne yaa ko jàpp waaye moom jàppagul kon l'islam mu des yeneen trois sous-escaliers muy euh, euh, axlasu soo jógee ci ci taqwa taxaw ci maqamam muslim ñu tuddee la muslim yow yaa ngi yootu ji maqamam axlasu maanaam rafetal rafetal boobu boo ci jógee daf lay duggal ci maqaamaam euh, euh, na kóolute óolu li nga jàpp am ci lu la leer naññi muy deux sous-escaliers su boobaa yaa ngay yootu ji maqaamaam imaan mu ñu ne ñu tuddee la mu'min nga door nag dugg ci maqaamaam mu'min kon seetal am nga trois trois sous-escaliers axlasu ah tumaanina tu imaan su boobaa yow euh, euh, sitku dama ko tëb sax sitku su fekkee ñëw nga ci sitku moom ngay njëkk a teg sa sous escalier boobu sitku dëggu ci ngay ci teg sa teg sa tànk mu dugal la ci axlasu nga sellal boo duggee ci ta axlasu sellal nga dugg ci tumaani natu tumaani natu googu moo lay dugal nag ci maqamam imaan xam nga kon romb nga islaam ñëw nga ci imaan ñu tuddee la lan mu'min yow mi dugg ci imaan yow la ñu tuddee mu'min kon mooy deuxième maqaama boo xam ne yow jullit bi dañ la koo laaj forcé war nga ca textal sappe soosu nag fa la yonent yi ñoom di déparé xam nga boo déggee ñu ne yonent du tuub moo tax yonent du àgg ci taw ba du jaar ci tawba yonent du jaar ci istiqamatu yonent du jaar ci lislaam maanaam dina ci jaar mais da koy maanaam dañ ko dañ ko dañ koy yéegal ci ci ci ci ci ascenseur moom mu romb étape yooyu yàlla ci boppam lu ko neex def moo leen dugal foofu su boobaa nag yow boo accès ci iman boobu yaa ngi taxaw nag ci sappe soo xam ne yaa ngi yónnent yi yéen a fa taxaw nga yóotu ji encore mu desenal yeneen trois jours escalier ci sa kanam nga xam ne da nga ci franchir mooy lan escalier mu raqabatu jege jege jegeñ lu jege lan borom bi parce que dañ de déglu ca wax ja yàlla def na de wallaahu yaddoo ila daari salaam yàlla oote na jëmale ca kër ak njub ga waaye wa yahdi man yashaaw dana jubal ku ko soob ila siraatil mustaqim ci siraatal ci yoonu siraatil mustaqim kon jàppal yow may déglu ne yaa ngi ci yoon woowu ginnaaw booy franchir étapes yi ma la wax noonu xam nga franchir nga six étapes mu des la yeneen trois étapes muy neuf étapes neuf étapes yooyu benn bu ci nekk benn maqama ka fay sàkku muy ñetti maqama yi jullit bi war a franchir muy islaam imaan ihsaan kon yow yaa ngi yóotu ji fi mu ne ihsaan moo tax yónent yëpp ihsaan la ñuy yóotu ji moo tax Moussa ba mu yàlla ah yow maqama bi nga dénk sa waaj yi man vraiment gën naa nga jagle ma ko yàlla ne ko ah yaa Moussa xusma atetuka wa kun mina shakirin su boobaa yow soo xasee taxaw ci maqamaam yónent yi muy imaan ginnaaw boo amee tumaaninatu mooy da am sitku dëggu axlasu sellal tumaaninatu óolute ci li nga li nga nekk mu boolu ma lay dugal ci maqamam imaan moo tax mooy mu'min ñu tuddee la fa mu'min muslim lañ la tuddee woon fi mu ne tapp nga garaata mu'min gannaaw boo tappee garaata mu'min yaa ngi yootu mu raqaba jegeñ jegeñ lu loo cay teg mu shahada seede seede lan jëmmi yàlla ji loo cay teg Euh, ihsaan waaw muraqaba mushahada maarifa maarifa mooy xam xam ci yàlla jegeñ jegeñ lu nga yàlla seede nga jëmmi yàlla ji yàlla toqan jël na ci kaas yi jox la ko nga naan am maarifa boobaa ci lañ lay ci lañ lay nekkee ihsaan maqamam ihsaan euh, nga xam ne ñooy fóode yi jiitu yonent bi bés saxaaba dañ ko wër muy jàngale ba mu yàgg benn waaye ñëw toog ba mu yàgg ne ko yaa rasulallah mu ne ko la béyka mu ne ko maamaama ihsaan maamaanaa islaam yow yow sang bu tedd bi lan mooy lislaam yonent bi ne ko lislaam day mooy shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah nga seede ne yàlla mooy yàlla yonent bi mooy yonentam wa iqaami salaat nga taxawal julli wa itaayi zakat nga génne zakat nga saw mu ram nga saw mu nga taxawal weeru koor or weeru koor wa xajjil bayt li may satan sa bii la nga xaj négam yàlla ba mu ne ñokkee dem ba mu yàgg mu del siwaat ne ko yaa rasulullah maa maanaa iman lan mooy iman boobu mu ngi jàngal saxaaba yi lan mooy ñetti maqaamay lislaam yi mu ko ne mu ne ko iman mooy nga gëm yàlla gëm bés penc gëm malaaka yi gëm safara gëm ajana waa ji ne ñokket jóg demaat ba mu yàgg mu del si ne ko maa maanaa mu ne ko dangay ngay julli wax bu tabbaka hmm? mel ni da ngay julli ba mel ni yaa ngi gis yàlla wala yow soo gisul yàlla jàppal na yàlla moom mu ngi lay gis loolu mooy maqaamam ihsaan ka abudallah ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka noonu la Fodé yi firee maqamam ihsaan waaye Mawlana Cheikh Ibrahima mu ne ah Fodé yi dëgg-dëgg bu ñu firee noonu maqamam ihsaan dëgg dëgg dëgg ba tey sori nañu ihsaan parce que ihsaan mooy lan mooy li ma la wax sànq muraqabatu mushahadatu maarifa loolu mooy maqamam ihsaan soo fa nekkee nag ci lañ la yooyee ci lañ lay tuddee muhsin gannaaw boo amee nag mus boo nekkee muslim nekk mu'min ci ngay tappee garaat tap muhsin su boobaa nag franchir nga étape yi yow mi may déglu soo dégloo li ponk yàlla tëral ci lislaam bi nga seedee baat seede fax bi pour yàlla dëggal pour nga dëggal yàlla ne dëgg moo tax ñu taxawal loolu la julli waaye julli am na tappale bu la neexee taxaw nga tànk bu la neexee nga taxaw doo wax dara sëgg gi hmm. kon mooy wax ne julli ko itaay zakat bu la neexee nga am alal génne ci zakat bu amee un million génne ñaari junne ne mooy suma zakat wala nga génnee junne ku la mën a kii waxoon nit ñi li nga am di yaa rek li nga am mën mën nga ne nangam laa am te taxul nga génnee la nga am lu lu lu la la la nga xam ne mooy xel ci zakat bi alal ji nga am am déet su boobaa alors loolu mooy mooy moom moom moom lañ lay wax ne la euh, étape yi yëpp bu la neexee mun nga ci am tappale julli gi mun naa am tappale baati seede yi mun nga koo wax nii rek mu bañ a dugg sa xol bi mais nag fi nga xam ne fi la yàllaay dóor jaas ji nag mooy weer wi ne mooy siyaam waaw moo tax yàlla wax ca pay ga ne tattaqoon ja ragal yàlla ga taqwaalaa ga waaw ba pare nag muy weer woowu ñu tànn ko wàccee ci li nga xam ne ñun mooy suñ constitution muy alquranul karim waaw shahrul ramadan allazi unzila fihi alquran wa baynat min alhuda wa furqaan loolu mooy furqaan yi taqale dëgg ak fen ñu ne weer la woo xam ne ñun yàlla ci lañ wàcce alquran alquran mooy lan alquran mooy furqaan furqaan mooy lan furqaan mooy taqale dëgg ak fen gis gën lépp lu ñu la wax nii ci relation bi nga xam ne moom nga am yow sa diggante ak sa borom yàlla tënkal na ko dëxëñal na la ko ci alxuraan relation yi nag ñett la jàpp ko yow mi may déglu relation bi yàlla la ak doomu adama yi relation bii doomu aadama yi ak nature bi mais doomu adama yi nag seen relation ak nature lañ jël privilégié ko seen relation diggante seen borom te pourtant looloo tax alxuraan wàcc soo ko seetee basmala bisimilah rahmaani rahim ci la yàlla tàmbalee fatiha ci la yàlla tàmbalee alxuraan teg ci surtout baqara fu mu ko mujjee ñaar ñooñu allahu naas yi buum gi yëpp pour dajale ñaar yii la lii nag moo tax yàlla tracé indi école yi samp leen tënk école yëpp kenn ku ci nekk mu am lu ma sampal nga am loo ci looy yëngatu waaye ñun nag danañ maandu ci wax ci ecole bi nga xam ne moom lañ gën a xam muy école Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif Ratallahan boo déggee ila daari salaam yaddoo ila daari salaam wa yahdi man yasu ila siraatin mustaqim ñun liñ jàpp ne mooy yoonu sax mooy yoonu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu moo ñu ko wax Baye radiyallahu moo ñu ne nasihatu mi nii maa ngi laayee biir sumay mbokk alal ixwaan fal tam si koo da ngeen mooy tariqatu Tidiane ci tariqa Tidiane lu tax mu ne ko tariqa mahdul fadli wa ridwaan aussi sa bi sunnati wal furqaan yéen samay mbokk parce que li ma la wax ni état bi ma la wax sànq. dugal ci sa bopp yombut kon foog nga ut àndandoor boo xam ne moo la ci yar àndandoor boo war la ci yar nag moom moo tax ulama yu samp seen école yi jàppal na école bu la neex waaye jàppal ne école boo mën a jàpp itam yi ma la wax nii moom la lay jàngal fokk mu jàpp la ba dugal la ci maqamam mu muslim dugal la ci maqamam mu'min dugal la ci maqamam muhsin chenamitian nag boo ñëwee moom dafa la naan na jàpp ci tarixa chenamitian lu tax bàyyi ne la tariqa mahdil fadli tariqa aji jubalkat yi lu tax aji jubalkat yi ndax jub moom ngay am rek huddan lil na moom la wax encore ca aaya ba ci koor gi boo dégloo bay baynat minal huda wa furqaan huda googu mooy njub mooy huddan moom ngay ñaan ci fatiha moo tax fatiha nekk euh, farata ci rakka bu nekk ñaan gi ngay ñaan yàlla ñaan gi ngay ñaan yàlla euh, dugal la ci njub hum ah ñu ngi koy ñaan ci Fatiha moo tax faat Fatiha nekk farata ci lislaam ci ci julli ci ci li moo tax nag cheram ci boo ñëwee ci yoon woowu lay teg ngir nga am njub njub googu pourtant moom lañ la layal laa ba fii hudan lil muttaqin ñi ragal yàlla njub googu soo ragalee yàlla nag da nga nangoo jàpp ci jaabab yàlla ñëw ne Macky amoon ah kat jébal naa la sama bopp waaye nag ci mag Macky omat la ci yoon woowu ba nga jot njub gi làmb ko du ci sa baaraam mos mu taqamteku nga xam ne lii mooy vitamine dina l'islam loolu moo tax lislaam bi kon taqwa laa googu moom ngay am rek pour nga yóotu maqama boobu mu dugal la nag ci maarifa maarifa nag chanaan bi tiyaan loolu rek moo ko tax a jóg pour yar jaami yàlla yi teg leen ci yoon omat leen su boobaa nag euh, borom bi nga xam ne mooy monsa bu Maalik tegtal nañu ban sëriñ nga war a jàpp pour mu dugal la ci maqama boobu tegtal na la it ban taalibe moo war am mat goo xam ne bu dee ak sëriñ boobu rek buñ contacté rek courant am loolu may lan mooy yow taalib yow yow yow yow yow may déglu euh, euh, Mawlana Cheikh ne na la watlub murabbiyan na nga sàkku aji yarkat xabiran naasiyan kaamila xerfaani imaaman saalihan jàppal yarkat boo xam ne dafay xam lu ñu lu lu lu bóor yi nëbbu xam aussi yi yi làqatu xam pakk yi su boobaa mu ne boo jàppee ci moom yow taalib bu moomale ko sa bopp soo ko moomalee sa bopp rek ab diir da ngeen xam ne bunt dana feeñ da nga gis ne yow li nga soxla woon yow jàmm bi defal na la ko mooy wàllu murabbiyan na nga jàpp aji yarkat rabba ci ci arab mooy yar murabbiyan aji yarkat xabiiran ku am lu xam mbóot yi naasihan ngaa biir kaamila mu mat xerfaani ci xam imaaman mu dee ilimaan ba di aji sell waa ji ne yooyoo fële imaam la de waaye boo ko toppee rek sànq kon utal imaam bu sell hmm. yow mi may waxal nag nga bëgg a naka nga war a mel mu ne la maliku nafsaka moomale ko sa bopp falaatu dëbbir bul déng-déng fa kun ka mayitin melal ni niw ci ronam dawaa man tuq bir diirab li ngeen xànd soo ko defee rek da nga jëriñ ci maqama teg sa ki ci suufsees ki lii ma la wax mu'min mus muslim muslim mu'min muhsin su boobaa nga am maarifa maarifa nag moom ngay am nag mooy gis nga warit dootul ñëw ci doomu adama yi ib eh, jibril dootul ñëw ci doomu aadama yi ndax jibril ci yónnent lañ ko daan yónni koo dégg mu ne la jibril ñëw feeñ na ma boo boo boo ko su ne ko wax ko waaye nag warit moom yàlla moom fi la ko tënk mooy buum gi dox diggante góor yàlla yi ak jaami yàlla yi góor góor yàlla yi ak yàlla moo tax ma ne la ñett relation yi ñetti rela ñaari relation rek la waaw di ñetti élément yàlla jaami yàlla yi nature bi waaw soo xéwee na nag sa digganteeg sa borom rek natt bi xéwee na la yow jàmm parce que natt bi yaa tax ñu bind ko kenn taxul ñu bind natt bi bu ma yow yàlla ci boppam ne dama laa bind pour man bind yun bind aadama pour boppam bind nature pour aadama moo tax nag yàlla aadama war a relation bi dekk diggante moom ak boromam wëlis muy dem ci beneen relation moo tax kenn ku ci ne wajib la yonent bi yàlla waxoon ko ci hadisul qudsi hadisul qudsi xam naa léegi mu jeex hadisul qudsi mooy hadis bu sell discours bu sell taxrifoo nii xam la na tax bu doon yi fa in lam taxrifoo nii taxrifoo nii fa kay fa tax bu doon yi doon na ko jujji sànq ca waxtaanam ne na xam yàlla xam ma njëkk balaa may gaañ xam nga loolu fóode yi dañ koy firée ne xam ni ñu jàmm yàlla déedéet yàlla dégg na arab mooy xam ma yàlla daf xam ma yow yonent bi ba qabla an tax bu doon yi fayn fayn lam yax tam fan fayn lam fa kay fa tax bu doon ni yow soo ma xamul yow yonent bi noo foofu lay tëjee boo seetee jaamu yàlla gi ni mu toll ni mu toll ah, yow boo seetee li nga ci def kon kon li nga ci def ak li ci yàlla def rek danga nga parce que boo xoolee amuloo alquran amoo suuf amoo kàttan amoo xibla loolu bee laa ko moom bu ko yàlla jëlee nooy jullee kon mooy julli yow julli woo boo ne maa julli ak julli yàqu na kon koor gii daf ñu indi bugg indi ñu xéwén ci maqaama boobu ndax nee naa la sànq lu ne mun na mun nga cee tappale ba mu des koor koor moom da ngay xool nga bañ xool sa diggante sa borom la dëkk moo tax yàlla moo koy fayal boppam dëkk waaw kutiba aleykum siyaam faratal nañ leen koor ci yéen kamaa ba ni ko ñu ko farataalee xoon min qablikum ñi leen njëkk laa laalakum tataxun ayaaman maadudat fa man kaana maridan koo xam ne danga am feebar ci koor gi mun ñu ne la mën ngaa dog beneen yoon nga fay yàlla jàpp na na lépp koo xam ne it da ngay tukki bu la neexee nga dog mën ngaa fay boo boo boo ñibbisee a ndax parce que yàlla xam na boo ooree yàlla xam na boo oorul yàlla xam na kon koor scientifique yi sax leeral nañ ne boo moteur boo jëndee oto ren ba déwén mala mu daw nangami weer dañ la naan war nga dem yóbbu vidange am déet doomu aadama corps dafay nekk vidange ci moom waaw sa organe yi dafay fonctionner onze mois ñu ne la douzième mois bi fexee ñu def lavage de cerveau jëmm jooju nga xam ne mooy jëmmi doomu aadama waaw su boobaa tension bi mun na ko wàccee jabet bi mën na ko wàccee lépp mën na ko wàccee muy corps waaye nag li ci nga xam ne dëgg dëgg dëgg moom lañu moom lañ ci ut daal mooy la allahum tattaqoon ji te taqoon ji nag nga dugg ci màqamam taqwaalaa moo tax ci nga ci la lay la joxe njub gi mu dëgën mboolem ñi nar a taxe bu amul benn sikk mboolem ñi nar a taxe daal njub googu leen ci yàlla laahi moo tax ñu ne yàlla ko fayal boppam yàlla lim la bind rek ni mel jar na nga jaamu yàlla ba dee kon jaamu yàlla di xalaat ajana sa jaamu yàlla du baax jaamu yàlla di ragal aussi safara sa jaamu yàlla du baax safara la comme yow ajana mbindeef la comme yow kon na nga jaamu yàlla nekk yàlla parce que yàlla bi jar nañu jaamu ko ba dee parce que mënoon nañoo def melentaan defu ko mënoon nañoo def gunóor mënoon nañoo def garab lu ko neex mu def ñu mais mooy jël def ñu nit koye ñu ci booleem li koye mu wax ko ca aaya ba laqad xalaqnaa insaana fi ahsani taqwiim état bango waaye nag su ma radda naaw asfala safli topp ma suufee la yow doomu aadama nga suufee mboolem lu gën a suufee ñaar yooyu nag diggante bi yëpp ay maqama yaay tànn nag yenn ñu la tànnal ma maqam boobu yàlla yenn ñu tànnal xam yi gën a koy ëssin takk yu ñun bi yenn ñu koy la tànnal bu ñu ko tànnalee ñu nekk ci lépp moo ñuy xamal lépp tax ku am xam-xam moo la ko jox ku ko ku ko ñàkk moo la ko xañ ku xam moo la jox ku ñàkk moo la xañ kon mënoo fexe ba makki ñàkk am mënoo fexe ba makki am mu ne suma préparé benn yiw pour suma jàmm yow jàmm bi nga dox suma diggante yiw woowu bu nga dox diggante jaam bi yiw woowu ma def la yiw ñeexal loo ci man buy safaan bay kazalika nako noonu wa ma zalika ala llahi bi azizin wa ma tawfiqi illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ngeen baal jox